set yi ñu jot a euh, bëri na moom bëri na car macha allah set yi ñu jot bëri na waaw yi am na bu 8000 am na bu 7000 am na bu 4000 ah yàgg na bu combat bi taxaw ba léegi gars yi ñoo ngi jënd si set yi ah. waaw. waaw ñooy jaay ba léegi. mais dañoo ragal ni tiset yi que xam gars ñoo di jënd dañoo bëri quoi non mobilisation bi ñoo si ñoo si kawam parce que xam nga ainsi moom gars yi moom mobilisation bi moom moom dafa tar moom ainsi moom ah, ah, xalaat sax combat bi moom amul sax xalaat ñun amuñu sax benn xalaat amuñu benn pression combat bi moom ñun dañuy daan ñibbi si bu soobee yàlla suñu borom Modou mooy fi moo ngi si jàmm moom moo si jàmm waaw ainsi moom ah ñun liñ koy ñaan moom ah na reposer bu baax ñun supporters yi ñoo ngi si ginnaawam ñu ma combat lu mu laaj rek ñun ñoo ko gën a soxla Modou moom ñun sax suñu ko dara. moom na dem indi ndam bi rek indi ko Parcelles ñun loolu rek lañ ko sas amul leneen luñ ko sas lu ndam rek lañ soxla ñun. waaw yàlla defal ko jàmm. ah ñu dem stade deux heures ñu dem stade daan ñibbi si ñëw fête suñu victoire ñun amuñu benn xalaat. bëree rek booy ma freestyle ko defar ko ci di sa takki photo ak naan fan si yi nootoo mbër mi fanden la cosaanu nootoo ak tey ba te duñu ba tey la gën a gëm ci moom la xëm maa ngi ko takkaatal sa ngemb booy mbir mi di yomb fii ci gar seen Modou Lo fii coow ci biir géew moom la ñuy jeew Modou Touss du koy xëppum soow doonum coow man ko bëre ba am licence la ba la sa fas waro say maas pi ay cat ba cat Cambérène xus ba yoof yaa fa boof ñu sumi la chapeau a wax waxuma la ñaar réel Papa Sow la ñoo jox nga faxas Balla Diouf nga raxas daw génn balaa moo xat noonu nga jaaree grand yow fekk Paul Maurice André Senghor dugal moo di premier di or fi yaa fi fort dem nga caaree géej géej jàkkaarloo ki saa pour yaa di guy duba des ñëw na nga ko naxul yaa ko suñu lees Cheikh nag nga ko dëgg cëkkul ko bëri bu ñàng Serigne Diouf amul njëriñ bi mu daw génn stade bi doon turandoo mel ci ruma xatti dóor mu naa toog daal di waaye commencé sañ jaar ba ci taaw daal di daatale maasale ñu jox la Balla Gaye mu am ndam sa kaw boobu combat à suivre la lamb ji moo doon fi doon cuivre daama njoon diñ sa noon lamb jee ñu boole dañ la woo fekk ci Tamba rek nga siif moo tax ñu yuxu la amba jarul nga toog ci TV bi di crise xam ne amuloo carte grise Modou Lo ari jarul wax ji di bëri bëri bu teg ne te kenn du ko teg toon cooki ndong la gën a mbong la yaa ngi Modou ci géew mu def la woo cong long la boo bëggee xarañ il faut nga dégg galañ amee sarañ sarañ boo ko sëggee xarañ di nga ne ngarañ boo ko wédee la colonne de guerre yàlla du sosee duñ ko sosee dafa siif dafa daw dafa rasu

suba la waaw instant bi dañuy jël suñu matuwaay lépp pour bañ xoolal nit bett ñu quoi. non du ragal sax mais xam nga rek ñun ñu xamuñu ñëpp quoi am ñoo xamante tamit mënoo leen di wóolu à 100 pour cent parce que xam ñun fii bëgguñu rax dañoo bëgg xoolal ñun ñu kese bëgguñu rax moo waral lii lépp. moo dafa buuse non dafa buuse rek nekk ci waaw ci buloo laa tudd ñoo bokk ndeeg baay sama rakk la sant yàlla rek fu mu toll nii ñu li ñoo wax def def nañ ko di ñaan yàlla suba booy bi am ndam bu rëy ci kaw Eumeu Sène dafay dafa dem récupérer rek day noppal bi nga fii ni mu demee nit ñu bari yi nii xam nga mënoo fi récupérer dafa dem quelque part rek toog ko quoi concentré ci làmbam non fii depuis depuis avant ba léegi ñu la mel luuma la heure bu booy bi amee combat fi moom lu ma lay doon mënoo ko tere kenn mais xam chaque jour dañuy vigilant nag gis nga ni ñu def barrière fii ñu fi dëkk xanaa ñoo fi ne mais ku fi du loolu c'est une vigilance la rek combat moom ak chaque fois bu tollee fii nii rek ñun ñëpp a ciy jàpp xam nga waaw peut ku ñu xam rek ku ñu xam la kii même même ñun sax suñu biir sax dañuy surveillante parce que instant yi. combat la mystiquement c'est trop dangereux ñëpp xam nañ ni xam nga waa Pikine waa Parcelles ñëpp sob nañu ku ne ku ne mën na dugg fu ne parce que sëriñ yi ñëppay xam nga sëriñ yi ñooy ñooy ñooy bëre léegi bëre yi kenn ku ci nekk waa dañuy fanaan presque depuis depuis une semaine presque depuis une semaine ou bien même avant gars fi la ñuy toog xam nga di veillé jusqu'à l'aube ba suba si xam ñuy dem tëddi dem tëddi ñeneen jël relève bi xam comme ça quoi toute la toute la journée fii on est présent kenn mënu fi infiltrer incha allah. di yaayu Modou rek ñu may wooye antaloo suñu koñ antaloo lañ may wax. ma bëgg ko lool nag ndax moom daa sax sama xol bii waaw sama jëkkër moom mooy première moo di deuxième ndax na ko ko wax mu dégg xam nga loolu jarul histoire jarul dara ndax bëgg Modou rek di ko ñaanal ndam li mu jëm yàlla na ko suñu borom wallu ba mu mën a daan seen jël bu set wecc di ñaanal samay parents yëpp di ñaan ñun li ñuy def xanaa togg ba mu neex rek jox gor ñu ñu lekk ba suur ndax Modou moo ñu ko jaral lu ñu bëgg rek ñun Modou suba ba ngoon Modou di bëggee Modou rek di bëggee Modou rek ba suba ba ngoon jaajëf li a togg ceeb yàpp bu saf sap yu baax yu toj waa war na ko ba mu nekk xarit toj waaw di ñaanal nag Modou nag Modou moom dañ koy ñaanal ndam li moom na ñëw parcelle rek gis nga ñu nii sans faute zéro pression fu mu toll nii pare nañu parce que ñu pare nañ bu yàgg wax jee fi desoon rek pare nañ woon bu yàgg di yàgg di ko xaar fu mu toll nii gisoo soo ba tey ñoo ngi fii dem ñëw xaar suba rek moo ci des heure bii heure bii invité nañ la fii suba jubilé bi fii bu yaroo ñu daan ko ndànk ndax mag la sax te mag bi xëccoo xale dangay dem ba mujj da ngay bàyyi xale bi xale bi yóbbu ko mag la. combat bi daal li wër te wër toll nañu fu sore sori te suñu mbër lim ñu woon sincèrement dafa dal suñu xel fii nag euh, gars yi dañuy jaawale dijji ak dëgër. mais li may fàttali mooy reporter mooy bu ñu fàttali ëmma def na dix ans ci làmb pour Modou door dugg ci làmb te Modou ñëw na ba jiitu ko ci palmarès quoi ku def dix huit combats sept défaites kii ñëw am dix huit victoire bu kuy joxe favori da ngay da ngay joxe sa xalaat rek mais ñun suñu mbër waxuñu la sax favori mais c'est le prince sincèrement quoi te dal na suñu xel non mobilisation moom suñu côté kenn waruñu wax mobilisation parce que ñun toujours dañuy mobiliser Modou suñu mbër la bu demoon fii ba Chine bu ñu jaayoon bie dañuy dem fekk ko fu mu ne ñu fekk ko fa te ni ko seex bi waxee rek ku ñu ko rimbax ñu timbax la ko bu keroga waa Pikine lu ñu nam ñu fekk leen ci ba mu ëpp ñu xeex na duñ xuloo ndax ñun parcelle lañ dëkkuwaat dañoo civilisé dinañ ànd ak suñu mbër supporter ko mu bëri si jàmm daan si jàmm ci kattanu yàlla Modou Lo ñu Banna Sow di lawbe Modou Lo ñu maasa may xartu Anta ak xartu Fatim Modou Lo bëgg ñu teg ci place ñu ngi koy ñaanal ñun waa Parcelles ñun lawbe bi mu daan ëmma seen jëlu bu rëy wecc ah su nekkee xeexkat ñun gëmuñu xeexkatam barke Serigne Saliou Mbacke ñun gëmuñu ëmma seen katam moom dafa aase ñun gëmuñu ko dafa aase 3G ñaa xarañ loo ñaa égayee ñaa parcelle oui dans le souci bien faire les choses dañuy jàppale suñu mbër bi ñu naan ko Modou xarañ loo doomu yaay Njóoba ji mbëru parcelle mbëru askan bi waaw mu ngi nekk. waaw waaw bu non t-shirt moom mën ñu koo xayma wax dëgg yàlla t-shirt du féminin yi rek gel yi maanaam jaay naa ci de deux cent quelques t-shirt góor ñi moom plus de 500 t-shirts laa defaroon instant yii dem naa ci 400 450 ventes laa nekk nii ça me reste 50 ventes quoi moom laa dese nii pour liquider ko am naa tamit yeneen commandes yu ma mbër bi ci boobu commandé pour demee quoi waa Fandène yi war a ñëw ak waa Gambie yi war a ñëw si ba. yi maa ngi ko doon jaayee 8000 francs t-shirt góor yi ma ko doon jaayee 10 000 francs waaw. non dinaa ci am non combat gi moom dëgg yàlla mënu ma ko ngi ciy soqeeku. non combat bi moom bëri daan ñibbi la rek prix dib la moom xam naa du yàgg moom waaw du yàgg moom ndax combat bi combat waa banlieue ak waa banlieue la comme seen mbaru banlieue la Modou Lo mbaru banlieue la làmb ju njëkk ji ñu fii njëkk dëkk moom lañu sagoo dañuy jàpp ni ci deuxième report bi sax mu na bañ nekk boobu Modou pare na pare na pour combat mais suñu borom lu mu dogal dogal na ko mais ci li ñuy gis démb ak barki démb ak li mu taxawee jàpp nañu Modou Lo taxaw na pour combat bi donc ci loolu am nañ ko Oh. Eumeu mbër la mais mënul nekk favori face à Modou Lo ndax Modou boo ko xoolee ñi am mbër yi gën a taxaw ñooñ la gën a mën a bëreel ñun li ñu jàpp mooy Modou mooy favori bi tey mooy favori bi ëllëg te du daw di yoxu yoxi suba ci waxtu wii fidèle lay woo ñu ñëw ñu féete jàpp nañu Modou Lo daal